asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ak ji safoo Sunugal 24 mbégte la ñuy am saa su nekk di ànd ak yéen ci seen émission bi di fii lay xewee lay xewee nag comme ni ma koy waxee saa su nekk mooy émission bi nga xamante ni moo leen di bépp xew-xew wala bépp fait divers wala sax actualité bi nga xamante ni soxal na société bi tey nag jigéen la ñuy waxtaanee moom la ñuy indi comme thème ndax dañoo nemmeeku ni jigéen ñi léegi seen comportement yi euh, jéggi na doyo wala sax ëpp na doyo ci seen waxin ci seen solin ba tax na dañ ciy ànd ak saa su nekk rek euh, oustaz Thioune ak ki nga xamante ni mooy Moustapha Mbaye waaye balaa ñoo dugg ci waxtaan bi yeeg dañ leen di bàyyi ñu nuyoo sas tuun nuyu nañ la nga bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi seetaan Sunugal 24. maam Diarra maa ngi lay fay mais maam Diarra dama waroon wax nag asalaamaaleykum wa waaleykum salaam. auzu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min mbokk jullit yi mbokk yi àddina bi mbokk yi seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen ko bi jaay séddul bu jot salawaatullaahi wa salaamu alayhi ginnaaw loolu nag euh, suñ suñ soxna si maam jaara ñu lay wax ne kon incha allahu taala ñu ngi xaar ba Moustapha nuyu jàmm incha allah ñu dugg ci waxtaan bi. Moustapha Mbaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Diarra di am mbégte rek euh, saa su di teew ak yow ci plateau bi. Mhm. ci thème yu am solo yi ngi ci soulever ak sunu xam-xam bu gàtt ñu ciy jéem as néew li ñu ci xam rek. indi ci suñu contribution yaakaar ne ñu ñuy teewlu dinañ ci jëlee njëriñ ak lépp lu ciy jub rek ñu nangu ne ay gëstu ak lu ñuy jéem rek lépp lu ci dëngu nag ñu jégal ñu ko xam ne wax moo metti voilà tey nag comme ni ma ko waxee rek sànq jigéen la ñu ci comportement yi dañoo nemmeeku jigéen ñi léegi ñu ci ëpp dañoo ñàkk li nga xamante ni mooy seen valeur ndax respecté tuñu seen bopp ci nuñ ko mën a waxee ak ñiñ ko sañ wax ci seen i waxina ci seen i jëfina ci seen sax ci seen solina maanaam oustaz tey boo ñu doon dikkalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci wàllum diine bi Euh, jigéen en tant que tel lan la yàlla wax ci jigéen nan la war a mën a comporté woo nan la mën a wax nan lay waxee tey boo ñu doon dikkalaat yàlla lan la wax ci jigéen. jërëjëf soxna Diarra ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di am kontaan ak mbégte ci euh, question bi nga xam ne mun nga posé mooy jigéen ban comportement la war a am jigéen moom comportement bi mu war a am mooy bi ko lislaam tëral rek ndax yàlla. jullit yëpp moo xam ñu góor ñi la moo xam ñu jigéen ñi la kenn ku nekk sa comportement l'islam moo la ko dër mm. euh, malheureusement nag yegg nañ ci jamono joo xam ne nii ñi nga xam ne nii ñooy wooye seen bopp jullit comportement yooyu ak valeur yooyu soxlaatuñ ko mm. dafa mel ni ki ñoom li leen l'islam jox mu nekk comme valeur dañ ko jël teg na le dem seeti li nga xam ne nii moom la leen tubaab bi indil dem seeti li nga xam ne nii moom la leen àdduna indil te fekk mu nekk loo xam ne ni dëppwut ak lislaam dëppwut ak ngor dëppwut ak kersa su ko defee nag ab jullit dafa war a dellu ci boromam dellu ci alquranul karim dellu ci sunu yonte bi alayhi salaatu wasalaam te buñ ci dellu nag référence bi nga xam ne nii mooy référence bu mag bi mooy kiñ ci war a roy mooy yent bi alayhi salaatu wasalaam su ko defee nag dañ koy delloowaat ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi delloo ko ci ñi nga xam ñooy njaboot gi ndax képp koo xam ne da nekk kilifa képp koo xam ne nga nekk waajur di responsable Euh, alquran wax na ak yow ndax alquran bi muy wax ak yow ki mu ci jiital mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam te mu yàlla waxee yonente bi rek bàyyitul kenn kon oustaz Basiru Cuun mun cee génn euh, sëñ Moustapha mun cee génn libaas mi ak sëñ Mansour daa mi kenn génnu ci maam jaara euh, jigéen ñi nag da dégg leen yenn saa yi boo leen di wax yu mel noonu nga dégg ñeen la pourtant jabaru sëriñ sàngam da koy def mm. pourtant jabaru oustaz yi dañ koy def mais l'islam xàmmewut loolu yàlla ñëpp a ci bokk ndax yàlla bi mu koy tere ak bi mu koy digle ki nga xam ne mooy rasulullah mu la joxal bi ne ko yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina di nga fi mu déparé yow Muhammad yow mi ma yàlla yow mi ma yónni waxal say soxna ak say doom li mu ci teg mooy wa nisaa wa nisaa'ul na jigéen ñi nga xam ne ni ay jigéen ñi jullit lañ ñoom itam wax leen ne yudniina alayhinna min jalaabibihinna na ñuy sol ay jalaabi yu mat. dañuy sol ay jire yu complet yoo xam ne dina suturaal seen xawra zalika adna an yoraf na loolu nag lu ci am importance la mu ne loolu mooy tax ñu xàmmee leen ne kii nit ku yiw la loolu mooy tax ñu xàmmee ne kii nit ku baax la kon cest à képp koo xam ne comportement boobu yorefu la ko da ngay neex a joxoñ baaraam da ngay neex a tuumaal da ngay neex a tooñ ci mbedd mi waaye am na comportement yoo xam ne boo ko yoree pour xale bu góor interpeller la du yomb balaa mu koy def dina ko xalaat xalaataat ko soxna maam jaara parce que jigéen bu fekkee dafa sol lu jot sol lu yiw jikk jikko boo xam ne moom la lislaam tëral pour xale bu góor wala góor geneen gu mën a doon di ko interpeller naan ko sa li nga sol ak nangam nangam du yomb waaye nag nga xam ne dafa sol lu vulgaire koo xam ne dafa sol loo xam ne yaramam koo xam ne dafa sol lu seere kooku pour ñu interpeller ko pour ñu wax ak moom dafay yomb moo tax mu ne zalika àddina an yoroon lim ci teg mooy falaa yu zeyna bu ñu lor nit ñi mooy jigéen ñi bu ñu lor góor ñi cest di dire génn seen yaram ba tax am keneen ku la gis di am xememteef ci yow ba mu yóbbee ko bàkkaar yow mi nga xam ne yaa yor comportement bi nga xam ne lislaam gërëmul ko yaa ko lor te it jabaru kilifa gi nga xam ne ni tey euh, borom këram nekk na kilifa nekk na responsable wala mu nekk nitu yàlla génn ci mbedd mi yor yenn comportement yi ba noppi ñi nga xam ne nii ñooy doomu aadama yi di wax ak moom wala ñuy def ak moom naka su ba dara mën lañ cey fekk kooku ku jigéen ko moo ko lool moo tax mu a falaa falaa yu say na bu waxee ne falaa yu say na wa kaana a xafuran rahima waaye nag yàlla moom amee na yërmande képp koo xam ne nii euh, dégg na kàddu gii nii ba tax mu dellu gannaaw mu jàjju su baa suñu borom subhanahu wa taala dina ko jégal dina ko yërëm li ma bëggoon a ubbee sama waxtaan bi sax mooy ne xale yu jigéen ñi ak ku mën a doon rek ñu xam ne dañ leen bëgg a biir te yéen bi dafa wax ne addiinu nasiha diina laayi biir la kenn jàpp ne dañ koy xas bu kenn jàpp ne dañu jàpp ne moom amul diina déedéet te am naa yaakaar ne am na ñoo xam ne bu buñ ko déggee sa classe gi nii dañuy wàññi ni ñuy solo dañuy wàññi seen comportement incha allahu taala. incha allah comme man mii rek def naa ne chaque jour nga ne ma jaara del muuru ba tax da tey ji ñëw naa def naa ne kontaan nga ci noonu lay ñëw ci Moustapha xale jigéen ñi seen i melokaan ëpp na doyo ndax seen i waxin seen i jëfin léegi dafa dem ba société bi sax tendance nañ ko bëgg a def lan nga jàpp que ni moo waral lu ñu mel. waaw mbir la boo xamante ne pour man euh, pour nga comprendre ko du doon lu yomb mais tamit foog nga dugal ko ci jàngat boo xam ne da nga koy teg ci temps maanaam da nga koy da nga koy da nga koy évaluer par rapport ak temps bi fi ñu jógee ak fi ñu jëm mm-hmm. xam dañoo nekk ci monde boo xam ne léegi dañuy wax ne village planétaire mm-hmm. lu xew États-Unis léegi jaratul ngay bu njëkk ba da nga daan taal sa télé mm-hmm. zappe ñu naan jàppal ay taal ay taal yooyu sa téléphone portable bi nga yor rek mën nga cee voyager dem ci lu nekk di découvrir de ce fait que bu génnee États-Unis rek wala bu génn Australie war fenn mu mën doon ci àddina bi à la minute qui Afrique mën nañ cee jot keneen na importé amuñu benn filtre bu ñu am dañuy yaakaar ne lépp lu ñu gis fële dañ ko war a am fii or dañu am benn repère benn répertoire culturel ak benn répertoire boo xam ne ay valeur la def boo xamante ne dañ ci war a bàyyi xel et malheureusement duñ ci bàyyi xel loolu moo waral nag parfois nga gis ñenn ñi dañuy am benn mimétisme bu ñuy def maanaam di copier coller boo xamante ni dañ koy maanaam gëmm seeni bët sax mooy waral yenn saa yi nga gis seen i dérive yi bu ñu jógee ci copier coller boobu noonu am na tamit beneen point boo xam ne mun nañ ko mën nañ ko ci boolee joxoñ baaraamu tuuma mooy technologie de l' information et de communication rawatina internet bi léegi ñu mel xam nga dañu toll jamono joo xamante ne nee naa depuis bi nga xam ne moo buzz dafa commencé am di am doole ci dëkk bi mm-hmm. ñu bëri dañoo yaakaar ne pour nga siiw il faut nga def ñu bëri dañoo yaakaar ne pour nga am place wala pour nga am xëy pour nga yegg fenn il faut nga def buzz donc loolu nag mooy yóbbee ñenn ñi am yenn comportement yi ba bu ñu leen invité ci télé wala bu ñuy wala ñu toog seen kër sax def ay def ay TikTok wala ñu def ay vidéo yoo xam ne ëppoon naa sax wan nit mu koy gis nga koy wan àddina bi yëpp mm-hmm. ay vidéo yoo xam ne waroon génn sax sa néeg nga koy wan àddina bi yëpp sol ci loo xamante ne nekkaa ngi jot si man kooku mbirum buzz moo koy yóbbaale muy def buzz à prix buzz à prix boobu nag moo koy parfois muy lu ñuy wax bad buzz mooy buzz boo xam ne baaxul parfois mooy li daal yenn saa yi ñu ngi si internet ñu leen tudd foo xamante ne kenn du bëgg tudd fa sa doom mm-hmm. ay photom la tasaare si internet bi wala moo saaga wala moo wax ju ñaaw téléphone bi di sonné fu nekk ku di la woo di la woo di la woo kooku bad buzz am léegi nag loolu lépp après nag boo ko buñ ko buñ ko bëggee résumé rek mooy dafay loo xamante ne dafa dafa extérieur ci ñun am na dafa interne ci ñun li extérieur mooy li nga xamante ne masse bi moo ñu ci mm-hmm. man dama koy def parce que jaaraan koy jàpp ko man dama koy def parce que na ko ñu embauché ko mu am liggéey mm-hmm. man dama koy def parce que kële noonu def ba léegi mi ngi am xaalis mi ngi tabax kër yaayam loolu c'est extérieur ci ñun loolu société bi moo moom am loo ne interne ci ñun li interne ci ñun nag mooy loo xam ne éducation bi la éducation bi la yaram bi la environnement bi mu dëkk la kër gi mu nekk la c'est un ensemble boo xam ne ñoo koy dimbali ba nga ba mu ñàkk ko ba nga xamante ne lépp loo xamante ne daf ko war a fëkk du ko yóbbaale mm-hmm. mais su ko deful rek mën na benn comportement boo xamante ne dafay doon dafay doon benn xob boo xamante ne lu ñëw rek yóbbaale parce que Sëñ Abdoulaye Mbacke doon na ko wax nee na nit dafa war a moytu doon ab xob boo doonee xob ngelaw mën na laa fekk dugale ci pax te bu la dugalee ci pax ngelaw la du la mën a génnee ci pax mm-hmm. kon nit dafa doon ab ëkk boo doonee ëkk nag ngelaw fu la fekk fa lay bàyyi ci loolu lay ñëwee ci wàllum sax éducation bi ndax boo seetloo ci wàllu woowu maanaam jigéen ñi comporté woo comportement bu bizarre boobu euh, société bi daf dañ cee am part de responsabilité bu mag a mag ndax ustaas kat euh, defe naa ni yow boo nekkee si kër di muuru euh, léegi dañoo dem sax ba muuraay léegi dañ koy am na ci kër yoo xam ne dañ koy gaafal duñ nangu seen doom muuru ah góor ñi nga muuru nga nekk ak ñoom nga muuru dañuy dem seeti topp koo xamante ni tey muuruut mi ngi tendance mi ngi tatoué mi ngi xesal ba weex mu mel ni ñoom it responsabilité bu mag muy góor gi muy ci parents yi ak societé bi maanaam. waaw kay soxna Diarra yëpp li nga wax am na solo trop euh, kilifa yi am nañ ci responsabilité bu mag li nga wax sax man am naa ci firnde waaw man am na benn euh, xale bu jigéen bu doon sëy ba yàgg sëy bi di tas muy ñëw ci man di jàng si sëy ba li ko taxoon tas mooy jëkkër ji daf ne ko doo muuru dafa am doom kooku moom yàlla na dee euh, dafa am doom dem ba ngénte bi jublu si ndeysaan xale bu jigéen boo xam ne chrétien la woon mu tuub dugg ci lislaam mu gis benn waay bu tudd Babacar mu ne moom sëñ baabakar da koo neex ba tax léegi mu daal di bëgg Babacar boobu léegi bi mu bëgganteeg Babacar Babacar takk ko yàlla dogal mu ëmb am doom léegi nag bi ñu koy ngénte nag mu ne ko jëkkër ji may ma xaalis ma dem marché lundi bi pour jéem a jënd ay kol jëkkër ji ne ko noonu da dem salon mu ne ko man duma dem salon man damay muuru parce que man dama nekkoon chrétien tuub dugg ci lislaam kon damay jéem a pratiquer li lislaam santaane xoolal ma loolu jëkkër ji nag na ko non noonoo non il faut nga dem salon maquillé wu teg ay teg yooyu noonu nga xam ne euh, ki koy def yëpp ñi koy def macha allah euh, yonent bi beneen yàlla daleen leen di rëbb léegi nag bi nga xamee ne euh, wax na loolu ñu coow ci ñu discuter discuter ba ngénte gi paase léegi jëkkër ji dem wutiwaat beneen jabar rien que lim lim bëgg moom jabar ji defal ko ko parce que dafa bëgg koo xam ne day xeesal di teg ay greffage di teg ay cheveux yu mel noonu kon loolu man gis naa ko bu baax mais nag moom loolu jaral na ko sëyam bi tas ba tax noonu la tasee te jigéen nag gëm yàllaam moo ko waral gënal ab sëy ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne isa salatil mar'atu xamsaha wa saamat sëraha wa xafisat farjaha wa ataaxat zawjaha wa ataaxat zawjaha daxala jantar biha nee na jigéen bu fekkee dafa julli julli juróom woor weeru koor sàmb ba jaaloo dégg ndigal a jëkkëram dégg ko dégg ndigal a jëkkëram moo mujj mu ne su defee lii ba noppi su génnee àdduna mën naa am sunu borom yéen ko bu tàbbi ajana te tëkku yi nga xam ne ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëkku na ko ci ñi nga xam ne ñoo yor comportement yooyu war naa tax képp koo xam ne nii yaa ngi ko doon def nga daal di ko bàyyi ñu indi la ci rek benn xadis boo xam ne bu daw yaram la su ko defee ñu baaxee ko suñu jarbaat yi nga xam ne nii xëy na sax ñàkk xam moo leen ko tax di def parce que am na ay jigéen ñu bari ñoo xam ne ñu koy def xamuñ ne li ñuy def baaxul mais xëy na bu ñu ko xamee sax danañ ko bàyyi kon nag ñi nga xam ne nii nag buñ ko xamee bàyyi ko ñu ngi la ñuy conseiller ñi nga xam ne nag ñoom bu ñu ko xamee dañuy féttéerlu ñu ngi leen di laaye biir yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne sinfaani min ahli naar lam arahuma baadu yonent bi daf ne ñaari xeet a ngi nii ci waa safara laa leen bokk lañ bokk gis naa leen ci waaye ginnaaw ko gisaatuma leen ci leneen sinfaani min ahli naar lam arahuma baadu xeet a ngi gis naa leen ñi bokk ci waa safara ginnaaw ga gisaatuma leen ci leneen ñu ne ko ñoo ñan la yaa rasulallah mu ne qawmun siyaatun ka asnaabil baqri yadribuuna bihaa naas mu ne ay nit ñoo xam ne dañoo yore ay karwaas yu mel ni kii euh, geenab fat geenab nag ñu koy dóoree nit ñi loolu mooy nit ku am doole ku am ndombo tànkam ku am pouvoir am di ci not ñi nga xam ni nii ñoom la ëpp doole ñu ne ko beneen xeet ban la mu ne nisaaun kaasiyaatun haariyaatun maa'ilaatun mumilaatun ru'usuhunna ka'asnibatil buxti laa yadxuluuna jannata ka asnimatil buxti al maila laa yadxulna al jannata wala yajidna riha wa inna riha la yujadu min masirati kasa kasa allahu akbar bu ñu déggee addis bi li ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax daf ci teg ne ak jigéen ñoo xam ne kaas yaatun aari yaatun dañoo bari ay yére lool mais dañoo rafle lool koo dem ci armoire am da ngay fekk mu fees dell mooy yére boo ci génne boo ko peesee du mat libre ay daggit yu bon la ñuy sol ay yu gàtt la sol ay yu seere boole koog nag seer lool lool lool lool kaasiyaatun aariyaat déglul mu milaat maa ilaat am na benn riwaaya boo xam ne ni maa ilaat bi la jiite jiital daf ne maa ilaat mu miilaat léegi nag jigéen ju nekk nag war naa moytandiku bokk ca ñooña daf ne ku jéng ba noppi di jéngal keneen lu tax mu jéng ba noppi di jéngal keneen mooy li mu sol daraa ca baaxu li mu sol daraa ci jotul bàyyi aw moom ci biti génn kenn gis ko ba xelam nekk si jigéen ba tax mu dem wuri ji ko kon moom jeng na ba noppi jengal na keneen bàkkaar waaw da ciy boole keneen mu teg ci ne ruusuhunna ka asnimatil buxti almaila seen bopp yi boo leen gisee day mel ni ki boo su gëlëm bu jeng boosu gëlëm mooy jagañu gëlëm mooy yi ñuy teg léegi cheveux yi greffage yi ak euh, suñu yi ñuy teg kenn xamul ñu koy teg ci seen bopp yi ruusuhunna ka asnimatil buxti almaila waaye li mu ci teg mooy laa yadxulna al jannata jigéen ñooñu du ñu dugg àjjana wala yajidna riihaha àjjana du leen xeñ wa inna riihaha la yujadu min masirati kasaa wa kasa te xetuk na mën na la xeñ fi loolu fi ak Mali boo nekkee fi mu xeñ la te nee jigéen joo xam ne lii sa colka la lii sa comportement la bu ëllëgee yow àjjana jooja du la xeñ waxuma la nga céglu ko léegi nag ñi nga xam ne ñooy seetaan ñu xam ne man raakool laa rek wala lantinoor laa damay jottali rek wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu kenn wax ne oustaz ba dafa dugg nit ñi safara parce que léegi-léeg ma a toog te euh, leer na te neex na li nga xamante ni ñooñu seetaan en li nga wax de doy na waar ndax société bi jigéen ñi léegi jéggi nañ doy comme ni ma ko waxee sànq rek Moustapha ndax mm, waaye nag part de responsabilité yi dañ koy partagé ci góor kii euh, ci ci maanaam société bi daal ndax da ngay nekk ak sa doom mu muuru nga nekk ak sa jabar mu muuru nga dem bàyyi ko fa dem seeti keneen mu mel ne dafay am benn manquement bu muy bu muy sentir ba tax na moom it bu dindi def li jëkkëram bëgg ndax part de responsabilité boobu noonu yoon la. waaw li ma wax sànq rek mooy bëri na si ñoo xamante ne ñi ngi def loo xam ne gënalu leen mm-hmm. buñ sañoon duñ ko def mais amaana fi ñu dëkk la wala fi ñu nekkee parce que am na xale jigéen yoo xam ne ñi ngi seen kër ñemeew ñoo muuru bu ñu muuroo seen yaay wala seen papa bi leen jur mooy wax ak ñoom donc am na ñoo xam ne ñi ngi dund loolu mi loo xamante ne tamit euh, mënoo leen ko mënoo mënoo leen cee accuser dara mm-hmm. parce que bu fekkente ni kii moo si këram ngay dund ngay dundee moo lay dundal di la di la wodd di la jox nga lekk di jox nga mm-hmm. kooku lu mu la wax nga def ko soo ko soo ko amaana mën nga am problème ci biir kër googu mais li ma bëgg wax ci côté boobu rek mooy xam nga tey jii bëri na ñoo xam ne tamit ñu ngi nekk euh, yaakaar ne euh, li ñuy def wala li ñuy sol Euh, dara nekku si. Mhm. parfois da nga yaakaar ne sax ñoom est-ce que xam nañ ni def ban ban gravité am côté diine beeg mhm. parce que pour ñoom diine dafay ñëw après de oustaz moo toog di expliquer nii dañ naan ay jullit lañ ay ay ay bintu lañ ay aminata la ñoom ñëpp mais gëm-gëm ba ñu waroon am li waroon fi ñu waroon toll seen diine ba mu war leen jaral ñi muuru je pense que duñ duñ fa yegg. Ah, dañ koy xool ci Sénégal bi 99 je sais pas euh, musulman euh, seen diine koy woote rek waaye wéyewuñu ko. waaw mais mais xam nga loolu lu koy waral mooy parfois mode bi tamit def si en place bu bëri. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi muuru parce que dañoo teg benn jour def fulaar def ko statut wala ñu def ko profil am ku nekk yu affaire bi jàpp na lu mu jaaree fa muuru kooku muuruwul par conviction dafa muuru parce que mode bi la jàpp lii mu def nii dañ dem dañ ma lonkal ci wet gi nii wala dañ ko lonkal ci gauche wala droite mu rafet ma boole ci ak yeneen kii yoo xam ne mu tendance. Mm-hmm. mu fashion comme ni ko xale yi di waxee mu mel noonu mm-hmm. léegi bu ko defee nga ni yii man lii duma ko dindi ñu ne bu ko dindi lii jàpp na la nga jaare foofu muuru kooku mooy xëy benn gannaaw suba rek solo la benn mii benn ki rombaat la nga ne waa kii du ibaadu bi wala kii comme niñ leen di woowee kii du ibaadu bi mu ne ah, dimbali ma dafa tàng wala genre yi mm-hmm. fekk ba mu ciy dugg du woon gëm-gëm bokk bokkul ak nga xam ne dafa tëdd waxtaan ak yam toog yaakaar ne ah man kat colin gu bon gi ma nekkee man kat di ma nekkee bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma muur ji ñoom ñaar mënuñoo bokk gëm-gëm mu muuraay bi nga wax bu ñëw ci côté comportement bi ak côté côté côté waxin beek yooyu tamit genre kàddu yooyu tamit nga fay nga fay nga daal di gisaat am na ñoo xamante ne euh, wax ju ñaaw wala wax jigéen comme jigéen mooy débat bi tey ji mm-hmm. ñu wax wax joo xamante ne dafay blessé wala dafay gaañ wala ñu saaga defuñu ko mii dara parce que bu fekkente da nekk ci kër goo xamante ne yaay ji day saaga te moo la jur sa sa yaay ji la jur day saaga. Mm-hmm. defuñu ko dara ci kër gi ñu accepté ko. yow boo màggee di saaga tamit da yaakaar ne lu normal gis du ngeen du ngeen ko jox benn gravité loolu nag dafay wane ne parfois waajur yi dañuy am benn taxawaay boo xam ne war nañ ko am seen doom parce que ay miroir lañ ay reflet lañ yoo xamante ne suñ bàyyi yenn yi rek ëllëg seen doom mën nañ def naka sudul noonu ba da ngay nekk ci loo xale bu ko wax naka sudul noonu parent bi yow au lieu nga nga corriger ko na li ngay wax baaxul mais da nga koy def da nga koy reetaan donc donc donc daan naan naan dafa waxtu daf ko photo ko daf ko ay vidéo mm-hmm. dugal ko fu nekk mm-hmm. te comme li nga wax noonu léegi jardin da nga da nga indi benn benn domaine bu am solo boo xam ne mm-hmm. tuuti ma tuuti ma fàtte ko mooy gis nga ci processus de socialisation nit ki dafa am ay étapes yu muy jaaree xam nga dañuy wax étape bu jiitu bi mooy ci biir néeg bi

c'est faux mën nga gis benn xale mhm. ne kii dañ seen waa kër sax dañ mu léejee woon mhm. ak ni mu looxëeroon bi mu nekkee xale waaye léegi mhm. ah, li muy def yenn jardin wala li muy def bu nekkee ci daara ja bu màggee mu lay waayale certes ne parfois nag foofu la koy toppee mais c'est pas toujours euh, automatique wala obligatoire loo xam ne bu ko nekkee rek moom dafay nekkee ba tax na xale bi nga xam ne dafa nekk ci jardin bi wala mu nekk ci daara dafa am assistance yoo xam ne waajur bi dafa war a jouer benn rôle boo xam ne comme ay garde-fou ay genre barrière la war a doon ci xale bi parce que xale bi jamono dañ koy méngale comme benn bal boo xam ne dafa nekk ci ñaari diggante diggante yoo xam ne dafay def nii dem gauche di dem nga mënul doxal boppam boo ko dëngalee mu dem nii boo ko dëngalee mu dem na le nga gauche mu nga dëngal droite mu dem xam nga koo gidéewul boppam xale bi exactement noonu la mel parfois yaay ji xaw a def mu tourner nii papa ji def nii léegi ñoom naa nan war dañoo war tourner équilibre xale bi dox dox bal bi dem ci digg bi noonu te am dara lu ko gaañ loolu mooy équilibre léegi nag problème bi gën a mag nag mooy équilibre bi nan lañ trouver mm-hmm. parfois yaay ji day bëgg ba mu ëpp du bëgg kenn du wax dara doom ji mm-hmm. papa ji bëgg ba mu ëpp kenn du wax dara doom ji léegi nag excès baaxul nañ fexe ba équilibré su ko defee xale bu am éducation baax bu dee xale bu jigéen warul am yenn at nga commencé koo solo ay mini mm-hmm. di def yenn ci bopp bi di ko ci euh, euh, part de responsabilité yi ndax fii kat euh, lu comme li ma wax sànq rek pays jullit la Sénégal koo xam-xam ne réewum jullit la waaye dem nañ ba école yi sax am na yenn école yoo xamante ni tey boo fa duggee te muur woo dañ lay dàq. mu nekk mel ni état wu Sénégal wala ñu njiitu. boo fa duggee dañ lay dàq. boo waaw boo fa duggee muuru dañ lay dàq. Mhm. mu mel ni tamit euh, ñu ñuy jiita bokk euh, mbir moom seetaan nañ ci lool du du encouragé ñi nga xamante ni ñi ngi bëgg a muuru te bëgg a jàngi ci école yooyu dañ naan école fii laa bëgg a jàngi te boo muuroo doo fa dugg mu mel ni mbir mu loo xamante ni lu doy waar la lu ñu war a jóg la. waaw loolu problème problème mu muuraay je pense que beneen beneen sujet la boo xamante ne indi na débat yu bëri ci dëkk bi mooy école yi nga xam ne boo fa duggee ñu ne la doo muuru man dama yaakaar ne waxtaan na neex borom kër. man loolu man gis-gis boobu laa ci am école yi école privée catholique lañ wax xam nga tey ji am na am na am na ay franco arabe mosoo gis benn chrétien bu jël doom yóbbu ko ci franco arabe ba fa ne dem jàngi te du muuru. mosu man de gisaguma ko franco nga yóbbu nga gisoo benn chrétien bu dem jàngi ji day dem jàngi ji waaye sama doom bëgguma mu muuru gisuma ko. d'accord état laïque lañ nekk euh, laïcité la ñuy doxal waaye su fekkente ne ñoom dañoo école dañoo ne école privée catholique la. man dama yaakaar ne bu fekkente ne sax dañ leen may pour mu dem jàng ji kenn war dafa obligation affaire religion yi képp d'accord suñu yoon mayewul

réseaux sociaux yi kàllaama yi utiliser ah ñaaw na wax yi ñaaw na lan la mën a jur ban conséquence la mën a eh, indi ñi nga xamante ni ñooy doogee xal ndaw ñuy doogee jokk ak société bi sax laay wax. parce que bokk na ci àq waajur ak doomam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nga tànnal ko yaay ju baax tànnal ko yaay ju baax d'abord yaay joo xam ne ni du sol tuba yi du sol jin du sol mini yaay joo xam ne bu waxtu julli jotee dana julli loolu àq la joo xam ne dafa ci diggante doom. ak baay léegi nag su fekkee ne tànnal ko yaay ji baax bu nekk mu ne ko tànnal ko aw tur bu baax boo ko tànnalee tur bu baax bu noppi nag mu ne na ko jàngal diinaam nga jàngal ko alxuraan ba noppi nga takkal ko jabar ngeen doon wàccoo moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yéen ñëpp kenn ku nekk ab sàmm nga te kenn ku nekk li nga doon sàmm bu ëllëgee dañ la ko laaj mais su fekkee ne papa ji moo njëkk nekk ci kër gi sol mini wala yaay ji nekk ci kër gi sol sol benn robe boo xam ne daf koy xale bi daf koy wóor ne ko yaayam mi wodduwul wala yaay ji un sol mini wala yaay ji un sol baa parce que dañ koy gis ay mère yoo xam ne ni dañuy sol baa nekk si kër gi seen doom bu jigéen di ko gis seen doom bu góor di ko gis comportement yi nga xam ne ni xale yi moom la ñuy gis moom la ñuy copier léegi nag suñ ko copier ba noppi nag ñoom loolu seen yaay ak seen papa di dund dañ koy teel a xam subaa léegi ñoom tam dañ koy jéem a dund ak ñi nga xam ne ni ñoom lañu maasee ci mbedd mi ak ci école yi ak ci place yi suba nag mën naa jur lu baree baree bare bare euh, comme temps bi daf ñu xoj rek euh, ah li ci des baree tut bi question boo xamante ne moom duñ fi jóge te laaju ma la ko ndax dafa def problème tout le temps dama koy nekk di ko laaj sama xel dañu may dégg ñu ne jigéen léppam awra la te awra bu ko déggee mooy que ni boo nee awra rek ci man li may dee dafa am fu mu may yóbbu mais bu ñu nee jigéen léppam awra la oustaz bëgg naa nga ñëwaatal ma ci wax. waaw euh, jigéen léppam awra la dañuy wax ne jigéen yaramam lépp awra la maa addal wajh wal kafayni yaramam lépp awra la ba mooy cëlmaayam ak li nga xam ne moom mooy ay ténqam su boobaa nag képp koo xam ne jigéen nga di jullit gëm yàlla gëm alxuraan gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam la war mooy nga suturaal sa yaram su fekkee ne suturaal sa yaram nag da ngay am bàkkaar ndax kat bul fàtte ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon naa la ko ci aaya bi ci njëlbeen yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa wa nisaa il muminina yudnina alayhinna min jalaabibihinna loolu la yàlla wax yàlla bi muy wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne ko yow muhammad alayhi salaatu wasalaam waxal say soxna wax ñi nga xam ne nii ñooy say doom ak jigéenu jullit yi dañuy sol lu jot loo xam ne nii day muur seen awra kon nag ki nga xam ne nii moom dafa nekk jullit wax ne moom gëm na yàlla gëm na yonent bi alayhi salaatu wasalaam te moom aw yaramam du ko muur mu ngay bàyyi li nga xam ne moom la yàlla santaane ndax kat bul fàtte yonent bi alayhi salaatu dafa wax ne bépp xale bu jigéen bu xas mësër bu xas mësër ba julli war ko rek bu dara feeñ ci aw yaramam lu mooy cëlmaayam ak ay ténqam léegi nag am na beneen awra boo xam ne ni mu ngi tuddee awra mu xallasa mooy awra bi nga xam ne moo gën a foor te mooy bi nga xam ne moom la ñu suturaal boobu nag képp koo xam ne da koo wane bakkaar bu rëy moo la ciy fekk léegi nag yeneen awra yi nga xam ne moo ci des nag boo ko bu feeñee di nga am bàkkaar mais bàkkaar bu du mel noonu soxna maam jaara bàkkaar ba du noonu ba tax na comme temps bi dañoo xoj rek Moustapha Mbaye rek ñuy ñëwal ci solution yi ndax mbir mi mi ngi bëgg a jéggi dayo ci waxini jigéen ñi ci seen jëfin ci seen solin ah solution yi ndax buñ ko war nañ ko war nañoo wut daal lu koy saafara bu baax waaw solution yi man li ma jàpp ne rek mooy il faut que d' abord ñu bàyyi xel ci euh, euh, kër gi. Mm-hmm. kër gi d' abord parce que li foofu la dooree parce que actuellement dañoo constaté li ñu wax benn desserrement du contrôle social euh, parents yi contrôle bi ñu doon am ci ci njaboot gi amatuñ ko parce que mën comme ni ñu ko waxee xale yu bëri mhm. dañ leen a rëcc. parce que téléphone bi moo fa jaar parce que télé bi moo fa jaar donc il faut que ñu jéem a gën a xoolaat nan la def ba ñàkk kër gi. Mhm. su ko defee saay-saay bi nga xam ne mooy jóge fële yàq mu mu doon loo xamante ne dina dina doon lu jafe parce que bu njëkk ba dañ daan wax naan sa doom da ngay fexe ba mu am àndandoo bu baax bu amee àndandoo bu baax dina mën a mucc. waaye léegi àndandoo gu baax sax taxul mucc sa doom parce am na ci biir kër gi nga ko tëj am na yeneen éléments yoo xam ne ñu ngi violé biir kër gi ñu ngi violé li nga xam ne lépp da ko ñagoon kër gi ñëw daal di dugg ci biir euh, muy loo xamante ne ay mbir loo xam ne fa il faut ñu yeewu ci bàyyi ci xel su ko defee rek euh, ñu def seen rôle bañ a démissionné benn yoon euh, loolu dina mën dimbali ba xale yi am benn comportement bu baax rawatina soxna yu jigéen yi sell bi ñuy indil sa Mbaye ñu tàggatoo rek ba beneen yoon incha allah ba tax na rek euh, ñu lépp lu ñu fi indi rek pour waxtaan ci ak yéen la delloo siwaat la delloo siwaat sax ñun ñi nga xamante ni ñu ngi toog fii di wax ak yéen ba tax na euh, li leen li leen leen indiloon ci fii lay xewee di leen jox dig dajee ba beneen yoon incha allah merci